rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf al anbiyaai wal mursalin sayidina walana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi rudani wa tamkin bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi am mbégte di dalal euh, professeur Daouda Ndiaye fii ci jumaay Tuubaa ji ci turu daaira muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso ni ngeen ko gisee léegi mu waxta dalal ko waxtaan ak moom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxawee di ko jëmale ci doomu aadama yi rawatina jullit ñi rawatina taaliba yi Sëriñ Tuubaa yi ñu gis jëf ju am solo joo xam ne jëfoon na ko ci jumaay Masaalikul Jinaan ju demee nii euh, bërki démb rek euh, yàggul dara ci ginnaaw ñu dajeeg moom Poroxaan mu def fa jëf nii tey jii mu ñëw ci biir jumaay Sëriñ Tuubaa ji andi fi jumtukaay yu am solo yi nga xam ne andi na ko fi muy ay masque ay sel ay sajaada am ndox ak addiyam yoo xam ne daf ko barkeeloo ci liggéey bi Euh, loolu nag ni ko siñaa Afia waxee léegi rek ñu di ko naw di ko kañ di ko ci gërëm di ko ci sant itam di ko waxit ne ko noonu euh, nangul ko ko ak seere jëf ji rek lañ man waaye yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa mi tax mu di ko def ñoom ñoo amee ñoo koy fayal boppam te Sëriñ Tuubaa nag ni ko sëriñ Afia waxee léegi képp ku ko mas a xëyal mbaa nga gontal ko yaa ngi jot résultat bu ba fi ñuy wax yow te yomal xiyam ñëw ko te gëm nañu ne bu yomal xiyam lay raw ndax àdduna du ko ruk pay kon lu ñu fa gis rek xéewal la yu dolli ko ci pay gi waaye du pay gi pay gi moom ëllëg la ni ko sëñ Moussa Ka doon waxee rek euh, euh, lii moom aw ban la waaye la ca ban ga moom junni ñay la yoo xam ne euh, dara ñëwagut ci àdduna kon nag professeur ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax ne fii mooy daaira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo yore jumaa yi Tuubaa ji sëriñ Abdou Lahad Bousso mii moom moo yore bànqaas bi nga xam ne moo yore wàllu social ak relation extérieure ci biir daayira bi moo tax mooy taxawi waale waale itam wàllu wér-gu-yaram moo tax bi nga indee jumtukaay yi moom ci turu mboolem bureau daayira bi moom la àndal ngir mu dalal la nga jëbal ko yi nga xam ne moom la ngeen jébbale ginnaaw sunu kilifa nag mi ngi taxawoon ñu jël lépp teg ko ci loxoom waaye ñu ànd moom moo tax mu indi ci barab bii nga xam ne dañ ko waajal ci jumaa ji ngir man fii faj ñi nga xam ne dañoo ñëw ci jumaa ji dara dab leen fi paj mu njëkk su man leen fee topp toppatoo leen ba man leen a jàllale fu ñu leen di jàllale loolu nag ñu ngi ko daan def ci jamono yi màggal gàmmu ak événement yu mag yi xëy na sax nag su demoon ba euh, kattan gi mate ko sax dana danañuy def ajjuma ju ñu fexe ba am ko fi nekk di faj ginnaaw àggaguñ foofu nag fi ñu tollagoon foofu lañ tollagoon waaye nag mi ngi nii ginnaaw yow yaa ngi yëngu ci wàll googu xamal ne fii moom sa barab la ndax barabu murit yëpp la te boo xasee boo bokk ci murid kenn ëppaleetu la fi euh, fii nag niñ koy faral di waxee du leen kenn lépp ñëpp lu nay ku ngi ci du leen ni kenn lépp ñëpp lu nay ku ngi ci euh, Sëriñ nag waxoon na ne ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci suulu itam su mara détail yi ba faw jàpp naa ne kon murid bu nekk bëgg na cee feeñ jullit bu nekk bëgg na cee feeñ loolu moo waral xalifab Sëriñ Tuubaa bu fi ñëw nga gis ne na fi jooyal ab liggéeyam ngir bëgg cee feeñ ci noonu ko Sëriñ Tuubaa waxe woon kon tey boo fi feeñee nii dañu ànd ak xel mu dal ànd ak yaakaar ànd ak wóolu ne suñu euh, borom daf la nam ma dimbali moo tax mu xiir la ci nga di fi jëf yow ak ñi nga ko àndal ñëpp kon nag ñu ñaan dimbal loolu yàlla na nga ko jot boo jotee yàlla na nga ko jariñoo yow ak képp koo àndal ak képp ku la jàppale ci liggéey bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngi sant bu baax alhamdulilahi rabil alamina bisimilahi rahmaani rahim bi ma yàlla indee ci barabu sëñ Touba ma fekk fi ñu sedd ñu tedd ñoo xam ne ñoo fi teewal uh, sëriñ Bamba teewal fi sëñ Muntaxa ci barab bii mu dénk leen lépp sëñ Abdoulahi ak sëñ Abdoulahat bu sa yëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay dégg nañ ko démb tey soog a ñëw ak ci ndigalu sëñ Afia so bi nga xam ne moo leen jox ndigal ngeen def lépp euh, ni mu waxee léegi duma ci dellu siwaat mais mu xam ne rek taalibe bi ñu doon ñun mbégtale bis bu ne ci jamono ju ne ñuy liggéey sëñ te yàlla rek tax ak mbokku taalibe te yéen mënuñu lu leen di leen sant yéen ñu fi toogal mbokku taalibe ci ci jumaa ji di ko liggéeyal sëñ tubaa ñun ñoo fi waroon di nekk yéen a fi nekkal yéen fi nekkal donc ñun li ñu mën rek booy fu ngeen gis ne nag noonu la rek ñu topp leen ci. te lépp fi ngeen di teg seen tànk rek yoon bi yëpp mooy yoon yoon bi sëñ Tuubaa digale donc moo tax bi ñu ma indee ci bërëb bi bu ñu comme ni ngeen ko waxee léegi bi ñu paree ci affaire u sijaada ak yële ak ak ak gel yi ak ci bërëb bi ngeen jagle pour wér yaram te ni nga ko waxee loolu loolu moom defe naa ne ku ci xam dara mën ci dara rek dañ cee war a taxawu et surtout que nag ñu ñu bokk ci kër gi moo tax incha allah nee na maa ngi naan su ma ko xamee woon noonu de même bërëb bi tey ci màggal gii de danañ ci commencé def ci liggéey ci màggal gi waaye liñ naan euh, <coughs> sant yàlla rek biñ ko yàlla xamlee ne lii am na fi tey muy barab bu ñu fajee soxna yi ak bu ñu fajee góor ñi nga xam ne euh, ku fi dara jot ci macha allah ma macha allah mën nga ñëw ñu ñu xool la fi premier soins yi ba nga dem. gis naa ne ñu ko defee moom xalaat bi rek sant yàlla la xalaat bi rek sant yàlla jógee ci jàkka ji jumaa ji nga xam ne ku fi jóge yenn sa xool dina sedd ba mën ngaa tàggoog sa sa sago ndax contentement ndax fees ci xol ci yàlla. donc lii ñu teg ko fi man du may def lu sant leen ba pare parce que ñun ñëpp ngeen ko defal parce que kër docteur ku ko defal liggéey ñun ñëpp nga ko defal te di leen wax ne ah wax nga ko léegi sëñ Ablaye euh, sëñ Touba moom boo ko lebelee mu fay la kooku moom du xaar suba bi ngeen xoolee ni ñu ko defoon masalikul ñu naan yomb nag yombul noonu la ñu ko yombale bañ def ko Poroxaan noonu ñu ko yombale bañ def ci yeneen kër diine noonu la ñu ko yombale tey bañ ko fii ci ci Touba ci màggal gi donc mooy euh, euh, boo loo ci dugg rek mu fulal ko te ñu di xam nañ ci dara boo xoolee li ñu dugal ren euh, tey ci màggal gi ci poroxaan bi boo neyoon benn juróom-ñett juróomi yoon yi lañ indi tey te jëf ñëpp xam nañ ne li ñu dugal poroxaan macha allah tey loolu la ñu ful yoon ndax sëñ Tuubaa moo ñu may doole loolu donc fii ñu teg ci kër docteur gi nag jàpp leen ne incha allah euh, xaw ma ren mais à partir de maintenant ni ma ne dinañ fi indiwaat sama équipe ñu xool lépp luy garab lépp luy li nga xam ne docteur kër docteur dina ko soxla fii ci barab bi muy ay ay ay faj yenn faj yi muy bacc ku ci am dagg-dagg yenn gaañu gaañu yi bu jaree sax ñu wut équipement yoo xam ne pour yenn yenn xool yenn yenn euh, examen yi la dinañ ko fi indi incha allah rabi li ma leeru dem mooy kañ lay doon heure bi ñëw xam ne fii ah euh, lu bëree ngi fi te bu kër docteur ñi nga xam ne li ma leer mooy lu mel ni euh, région médical wala district bu Touba ñoom ñoom nga xam ne aussi lu mel nii da leen di jàppale rek donc dinañ xam ne incha allah ñëw jàppale leen. pour que ñu am ci tawféex am ci am ci ngërëmu sëñ Touba loolu daal moom def nañ ko suñu yitte bopp te incha allah yàlla ak sëñ Touba dinañ ci dimbali jërëjëf